sama waajaa ngi première sortie bu xuuxaan branco bi mu teewee Sénégal ak léegi mais avant may ñëw ci sortie xuuxaan branco bi damay njëkk a ñëw ci application bu baax bi VPN defe naa xam ngeen ko bu baax baa ngi nii de da ngeen koy télécharger wan leen ko maire yi ko xamul ak màggat ñi ko xamul da ngeen koy installé ci seen téléphone toog Amérique di naan kafe wala nga nekk Los Angeles di naan kafe yow yaa ngi Sénégal yaa ngi fa di naan café nànk installé ak sa muy dox nànk nga njaaxaan installé leen application VPN à tout moment bi mën na leen a bett beneen bi ci topp mooy kii bu mu leen gën a gore ah xuuxaan branco bu mu leen gën a gore billaay am na yenn sénégalais yu ñàkk jom xaw ma dañoo ñàkk jom xaw ma li ñuy def maandu lañ ko tuddee nee nañ ñoom affaire bii xew Sénégal duñ ci yëy duñ ci yàppi patt lañu boole ak organiser ñuy rey seeni ndawal réew di couper internet bi di leen not ñii ñuy tëj Sénégal am na ñu ñàkk jom Sénégal am na ñu ñàkk jom xanaa soo mënta wax mënoo def mënoo dindi sax xanaa nga yenu say loxo di yuuxu